ba pare doon campagne c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple désormais askan wi dañu war a faase loolu ci suñu taarix te xam ni élection présidentielle c'est l'adoption d'un projet par un peuple moo tax projet boobu ñu porte ni projet PASTEF di projet LACOS wala coalition Sonko président mënuñu fexe mënuñu muus a ko waat ba 2024 bi triomphe ak fu ñu ko mën di jaareel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 ndax dañ ñu bindal la yomb na yaakaar naa pièce ak mu ngi waaye noo koy defee foo jëlee la koy defee te doo leb ba gàtt loolu mooy di am solo donc mbokk yi euh, loolu lañ ne woon dinañ leen ko indi ci gàttal euh, di wax ne aussi wax dëgg yàlla mu ngi jaajëfal mbooleem Sénégalais yi waaye mbooleem patriote yi ndax nag ñi koy seet ñu ngi koy wax. ah lii nga xamante ne nii moom lañu gis ci biti ci engouement bi ñëpp nag engagé wu ci jiital ci nag waa Lagos ñëpp wane ne ah projet bi moo tiim ñëpp moo tiim suñuy jëm te xam nañu ne président Ousmane Sonko subaab ngoon guddeeg bëccëg ci projet bi lay dox te du mës def loo xam ni day. fakkatal waxuma sax gàntal projet waaye da koy fakkatal moo tax it relation confiance boobu am entre ñun ak moom yàlla dogal na relation boobu moo am entre moom ak askan wi am entre askan wi ak ñun ndax askan wi ku ñu xool ci ñun président Sonko la gis te loolu dafa nekk lu am solo moo tax ñuy jaajëfal askan wi di wax ni na nit ñi dem jëli seen carte yi loolu tamit wax nañu ko parce que carte yan nekk foofa di nelaw dañu bëri te bu ñu bëggee élection yi jeex dès le tour na ñëpp daw dem jëli seeni i carte daas fanaanal fas yéenaaw wote ji beneen bi nga xamante ne ni aussi wax na ko mooy nañu vigilant ndax bet blessé lañu amal affaire xam nga li gën a métti mooy nga gis sa défaite te dema ko ak càcc rek nga mën a waajal te li ñu mën a gé musal ci càcc mooy fexe ba fa ñu wàññee xob ya ñu am fa ñu am fa benn wala ñaari nit quinze mille vingt cinq ou plus bureau de vote yëpp ñu am fa des représentants et des remplaçants de ces représentants nga xam ne suñu bëggee def nii rek nañ bu ñu ko defee premier tour bi dafay leer nañ ndax askan bi pare donc vigilance boobu waaw 10 heures am na ñu ne sax laa ñuy ndékki mais li am solo mooy nañu fexe ba voter massivement mais sécuriser le vote bu ñu voter rek dem nañ ko sécuriser ba mu leer taxaw foofu ku ko bëgg a indi transfert wala dara ñeen na ko du ci dal loolu c' est extrêmement important pour fi def ndax nag 2024 c' est un tournant décisif te bés bu ñu rëccee lii dem ci gaal yi gis ngeen su boobaa euh, lu ko lu ko lu ko raw di ngeen ko gis parce que nag Sénégal kii kii nga xam ne toogu pour commencé ñoo jaay bu ñu bàyyee ba mu toog moom euh, euh, yaakaar naa ne musiba ko ëpp donc mbokk yi loolu lañ ne woon dinañ ko partager ak yéen di leen sant bu baax a baax di leen di wax ne rek ñu gën a farlu ci fi ñu jëm waaye tamit ñu fexe incha allahu rabbi bu 2024 ñu jëlaat suñu réew ci jàmm ak ci salaam. jërë ngeen jëf. jërëjëf El Malick mbokk yi